internet Télé Sénégal ñu ngeen di nuyu di leen euh, am mbégte dalal leen tey juillet en mode de euh, classe waaw ñu ngi ci huitième édition wu lii di Afrima mu nekk une première au Sénégal à Dakar alors tey y' a pas mal d' artistes y' a pas mal d' invités qui sont là y' a les acteurs qui sont là y' a des y' a des y' a des chanteurs qui sont là y' a même des tiktokers qui sont là donc ñun depuis 15 heures ba tey ñu ngi fi on va essayer de vous montrer un peu l' ambiance bi nga xamante ni moo fi nekk. dugg ci coulisses yi woon leen comme d' habitude dans c'est du Télé Sénégal parce que mooy loolu quoi je suis en mode. mairie Colobane looy def léegi léegi. waaw waaw ca kaw kay maa ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah waaye ñi ci kawam di gérer waaw maa ngi koy peñe di ko diw di ko liisal di ci def li ci war yëpp fa tabaarakallah waaw kay. fekk la ci li nga xamante ni moom moo di huitième édition wu Afrima fii ci biir Dakar une première ana tey yow en tant que acteur. Mhm. bon organisation bi man li ma ci jot a gis vraiment jaar na yoon parce que dem naa ci ouverture bi. dem naa aussi ci concert bi et que franchement gis naa fa liggéey bu rafet bi nga xam ne moom la ñii nga xam ne ñoo yoroon wàllum organisation bi def muy liggéey bu mucc ab bu rafet te événement bi aussi nekk na événement boo xam ne je pense que réussir nañ ko parce que sénégalais yi répondre nañ gars yi ñëw nañ am en masse et tout bien habillé bien sapé à la sénégalaise tu te loolu c'est une fierté parce que déjà euh, nous mettons la marque sénégalaise en fait voilà tey euh, lu toll ni Afrima artistes yu mag juge fi juge seen ay dëkk ñëw yan porte la mën a tijjil les acteurs yi nga xamante ni ñu ngi fi actuellement. bon mën na ubbi ay mën na ay portes yu bari ci euh, tout ce qui est le domaine euh, art ak culture parce que déjà bon quand on parle d'artistes en fait acteurs yi bokk nañ ci musiciens yi bokk nañ ci dëggkat yi ak fecckat yi ñëpp bokk nañ ci donc genre événement yu mel nii day gën a rapproché en fait artistes yi. c'est-à-dire les musiciens les acteurs ñooñu ñëpp da leen di gën a rapproché de telle sorte que ay liens mën na fa créer yoo xam ne ëllëg mën nañoo def ay partenariat liggéey ak ñoom te je pense que genre événement yi en fait loolu moo ci euh, métronome bi loolu lañ ci war a prôner loolu lañ ci war a mettre en valeur en fait. côté a y des propositions pour yéen yi nga xamante ni acteur ngeen ñu boole leen ci cinéma wu yeneen dëkk yi propositions. amaguñu proposition parce que man bon man euh, ñëw naa ci ouverture bi yàgguma fa ñëw naa ci concert bi aussi bon quand on parle day guddee. ce qui veut dire que am na yenn nit yoo xam ne doo leen fa gis peut-être ci af kii bi événement bi tapis rouge bi xëy peut-être yi ñoo xam ne ay producteurs lañ étranger bu ñu gisee yenn profil yi bu ñu laajtee liggéey yi nga xam ne moom la nit ñi di def et tout acteurs yeeg yooyu xëy peut-être liggéey mën na ci am je pense que loolu lañ ciy séntu mais amaguñ ci ay proposition en tant qu'acteur gis waaw gis nañ ci sunu bopp parce que voilà ñi ngi wane ay valeur Sénégal ñun acteurs yi ñëw nañ répondre xam nga ñëw sañse ba rafet ci tenue te xam nga loolu empreinte la ci Afrima bu ñu nee Afrima Sénégal dañ na ah gars yi de sañse nañ te ci ñi nga xam ne sañse nañ acteurs yeeg artistes yi waykat yeeg ñëpp ni ngi ci def nañ ci seen touche donc loolu fierté la ci ñun mbégte la ci ñun. ñu wax mariage bi wala. non sama vie privée la. voyage amoon loolu sama vie privée la du ma ci wax. <laughs> bon acteur social gars yi ñu ngi koy waajal comme acteurs yi ni ko defee woon daaw ci weeru koor bi def ay récolte de dons yóbbu ko ci prison yi yóbbu ko ci pouponnières yi xam nga dimbali néew di doole yi dimbali aussi ñi nga xam ni caabi da leen féete ginnaaw parce que ñun lool mooy suñu war bu ñu nekkee ay acteurs ay porteurs de voix lañ en plus de ça aussi war nañ andi suñu pierre à l'édifice dimbali li nga xam ne mooy société bi de telle sorte que dañ naan acteurs yi franchement am nañ benn liggéey boo xam ne ñu koy wéyale ci réew mi te effectivement loolu ñu ngi ci jeego yooyu te je pense que bientôt incha allah dinañ commencer ay récolte de dons là ñu ngi am contentement di lañ remercier aussi déjà di nuyu internautes yëpp euh, comme ni nga ko waxee Afrima c'est une première sur Dakar on est là pour l'événement pour soutenir aussi des amis euh, notre comme Skin Biology de Ndeye Fatou Ndaw voilà tey moo ma invité ñu teewal ko fii pour support ko pour aussi événement Afrique nga xamante ni ñëpp mboolem africain la ñoom ñoo ci nekk euh, pour sargal képp kuy artiste képp kuy euh, yëngu si wàllu cinéma wàllu culture et waaw c'est une opportunité pour tous ces artistes là vu que bëri nañ néewuñu te mën nañu seen liggéey également. donc porte la pour que ñu am déjà visibilité am euh, rencontre yu bees mën a xamante ak yeneen artistes africains yi et pourquoi pas travailler ensemble dans le futur bon on est là dessus ñoo ngi ñoo ngi fii ñoo ngi ci kawam ñoo ngi xaar encore yaay ñëwaat incha allah ak yeneen yeneen yu bees yeneen nouveauté yeneen yu gën a neex incha allah. amee delloo mu yëg yi dafa mel ni dañoo dañoo mer ñëpp a ñëw sañse sañse yu doy waar. mais xam nga suñ la invité da nga koy jox akam ba pare événement bi nga xamante ni toll na nii mu ñëw suñu réew su taaroo rek ñoo ko taaral quoi donc loolu la. mu mel ni mu mel euh, euh, événement la boo xamante ne ni yoon la tamit képp kuy sénégalais nekk fi defar moo xam cordonnier bi moo xam kiy ñaw yoon la mu wane waale li nga xamante ni moom la ñuy liggéey maanaam suñu culture ñun. mais c'est effectivement ça parce que je pense que lépp dafa am benn suite boo xamante ni mooy suite logique qui parle de nu mu tuddati musique. parle de vêtements xam nga parle de benn jab boo xamante ni nit ki war na ko war a mën a yor pour mettre en avant li nga xamante ni mooy def donc effectivement ça rejoint ce que tu as dit ñëpp dañ ciy dugg cordonnier bi ki xam ne mooy styliste bi couturier bi ñëpp ñuy jaay accessoire donc noonu lañ mën a def ba pare mettre en avant li nga xamante ni mooy suñuy produit jaay Sénégal quoi je pense que pas jot na am ba ñoom ñu ñëw Euh, c'est quoi la suite selon yow tey bu ñu doon joxe boo doon joxe proposition pour pour pour pour euh, les acteurs woykat yi fecckat yi acteurs yi lan ngay proposer lan teg ci table. alors pour ñu tijjil ñu ko comme opportunité c'est-à-dire euh, ni mu amee ci frange yi nga xamante ni bëri na tey musique bi je pense Afrima mu am boo xamante ni aussi c'est pour les acteurs comprendre nga c'est-à-dire c'est de reconnaître. tey jii nii le travail de tout un chacun dans un milieu est-ce que tu vois je pense que c'est essentiel tey ñun suñu ñëwee pour musiciens yi beneen yoon dinañu am événement pour ñun donc ce qui veut dire que développement bi ça va crescendo et en groupe quoi dans tous les domaines euh, de l'art et de la culture waaw mais jaajëf jaajëf waaye merci beaucoup salaamaaleykum waa Télé Sénégal di am mbégte loolu fekk leen fii mu nekk ndaje def naa bokk na ci gën a mag ci Afrique muy honneur euh, ñun tey waa Sénégal ñu accueillir leen donc euh, kontaan rek exactement Mhm. alors ça montre déjà que may nañu cër bu baax Sénégal que ñu ngi am benn visibilité te itam cinéma bokk na ci liy jaay dëkk ndax gis nga ne waa cinéma yëpp ñëw nañu wuyu si donc ñuy ñaan euh, étoile Sénégal di gën a briller incha allah ndax ñun ñëpp mooy suñu objectif. ben ay collaboration je pense yu bëri parce que ñoo ngi juge ñoom ci dëkk boo xam ne mooy Nigéria le plus grand pays producteur euh, cinéma. en Afrique donc defe naa ni ay coproduction Sénégal Afrique de l'Ouest yooyu yëpp mën na si juddu euh, muy fecckat yi tamit chorégraphie ci clip yeeg yu mel noonu donc defe ni industrie euh, créative ak culturelle moo siy gagné jaajëf. alors euh, ndaanaan bi maa ngi lay maa ngi delloo ziar waaye naka. alhamdulilah bu baax. li ma laaj yi ñoom tey dañoo ñëwee xol bu tàng génnee tenue yu doy waar. ah macha allah gis nga de dañuy jëm rek. tout ça pour représenter ah oui il faut nag comme que yaay Afrima moom j'en profite pour parler de cette marque de vêtements là Malnoir. qui est ma marque de vêtements. Ouais. ouais qui sera disponible très bientôt. Donc, Mais... mis a je suis dans l'entrepreneuriat. De base, je ingénieur informatique. Je suis dans l'informatique, le cinéma, les publicités. Man daal luy indi xaalis rek maa ngi. Touche à tout <laughs> curieux et toucher à tout quoi. Sincèrement, je m'y pas, c'est magnifique. c'est très beau on voit beaucoup de gens j'ai rencontré ici plein de personnes macha allah affaire bi commencé gul sax mais kontaan nañ quoi ah oui. mais mais mais la mën a xaar ci at bu bees bi. ah incha allah xanaa peut-être saison 2 en prise. ak yeneen projets yi ñëw rek incha allah. merci merci